maa lay dalal noo def Ndiaye maa ngi lay fay aussi di nuyu la président de la république son excellence monsieur Macky Sall mhm. waaye aussi maa ngi nuyu soxna Mariam Faye sal ci taxawaayam ci réew mi di nuyu état Sénégal di wax ni ñi ngi nuyu toute la justice ci taxawaay bi nga xam ni ñi ngi koy amal lépp lekk jëm ci wàllu yoon ak mhm. yoonal ci dëkk bi di nuyu tout le monde di am mbégte di jàkkaarloo. Euh, Mbaye ni nga gisee li nga xam ne rek moom moo di kàddu Hadjibou Soumaré yu jëm ci li nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall. waaw xanaa tëj ko kaso rek. parce que ku ñu tëj parce que aussi li mu wax noonu boo ko seetee dafa tuumaal le la république. Mhm. parce que Hadjibou dafa <coughs> dafa wax ne xoolal boole façon boole boobu. dafa yoole ba noppi nag mel ni dafay laaj naan. président maa ngi lay wax ni ndax joxoo dara Marie Le Pen ndax joxoo ko sept milliards. ba xam waaw ba xam. ba xam mel ni kuy laaj te laajul. dafa laaj de. loolu tuumaal la et eh, maa ngi wax monsieur le procureur mu saisir directement ki nga xam ni mooy Hadjibou Soumaré. ah ndax la loolu maan la. mais déedéet moom dafa laajte. ma ne amul laajte. dafa laaj pour président Macky Sall. leeral laaj. def ko moom daf ko daf ko arrangé. soxna si loolu war koo laaj. daf ko arrangé. ban arrangé. dafa arrangé loolu tapal loolu tapale la. tappale la président waxtu wi waroon na koo fekk mu tej ko kaso parce que aussi am na loo xam ni jaaduwul en tant que ak ni nga xam ni noonu la bañee nit ku ñuul président dina ko may sept milliards loolu di defe nga ni loolu dëgg la et alors loolu du dëgg amul dama lay laaj sérieusement amul ah. tey amul elak doo may laaj déedéet génn nañ ci gàmm am na fu nu génn ci gàmm lañ génn hmm. ndax professionnels yi ñoo fi nekk te ñu ngi liggéey normalement fi mu ne génn nañ gaam dama lay laaj nag. sëriñ bi doxatul. Macky Sall mere naa ko la <laughs> laay mere naa kon dëgg kon ñu ne may na Marie Le Pen caam. ñaata milliards la ko may. 7 milliards la sax dañ dañ dañ mbay mbay ah, mbay ma nag. ah sérieusement ni kon nit ñi. li ñuy man damaa xamul Marie Le Pen def ko xaw ma nu mu demee noonu. Ah. Macky Sall yow fii imaamu jàkka yépp dañuy rangaloo ñëw mu boole leen cinquante mille. cinquante mille Marie Ropen ñëw mu jox ko sept milliards. kon sept milliards bi loolu loolu loolu jaar mbay yaa ngi imaamu Géejawaay yëpp dajaloo nañ rangaloo mu may leen fukki junni. ñuy ku ne fukki junni ku ne fukki junni. waaw imaamu Kaolack ñëw. mu may mhm. leen eh, vingt cinq mille. <laughs> waa eh, Adja xoolal naan leen jël leen jël leen seen place. loolu yëpp defe nga ni loolu jaadu la. déedéet kenn wax Marie Ropen jógee France rek. ma ki ki ki ki ki ah léegi sept milliards yi fan la ko jëlee jooju tubaab la non sérieusement complexe tubaab la man li ma nekk ak moom yëpp xam nga lu ma musa may. ma musa li ma nekk ak moom yëpp gis nga lim ma mujjee woon a fay man ak Moustapha Cissé Lo. Mm. Ah. mooy rappel ba. waaw daan waa gars yi lu ngeen may jox. waaw ah, eh, président. commission ma naan ah yéen maa ngi leen commission bi ah. boobu ñaata la leen joxoon boobu dañoo yor ay bor. waroon koo fay xamut bor yàlla kon fi mu ne kon li nga wax nii yëpp. kon li nga lim heureusement ñëwaatal kon li nga ñëw rek. yaa ngi wax doon waaw yaa ngi woon en direct kon li ma eh. imaam yi jàng. waaw. même cinquante yi nga joxe woon baax na même sept huit da nga du sept mille yow nee la waa nga da nga ni huit milliards la. jàll na ci télé ñëpp a ngi a la. moom day yàqu daal. eh doo yàqu. Oh, oh, bu ngoonee nga dem añi ah, boo nga reeri rek. déet ne moo lan moo la dama xel neexut dañ maa xel mi neexut damay wax di muy leer di leen dem di sama xel neexut. léegi yaa ngi su Kambay daane di jaajëfal.